inna ilayhi raji'un rek bu ngeen gisee fii ñu taxaw nag ñu ngi Yoff Laayeen li maam mu Laay li ko waral nag mooy ku génn àddina laal ci làmb ndax way juru bàyyi ma ñoon bu góor la ñu ñëw nag fekk fi ay mbër ay promoteur maanaam waa làmb jamay kee maa ngi lay ziar te di la wax uh, sigi ndigal li ñu bokk Babacar maa ngi lay delloo ziar di la wax sigi sawaalo comme ni nga ko waxee rek tey baay ma njoon la waajuram wàcc mu nekk koo xam ne ku bokk ci làmb la nitu làmb la kon bu yàlla defee loolu dal ko ñun ñëpp lay tiis bi su ñun ñëpp la dal ci axlu làmb yëpp la dal loolu moo waral ñu ñëw bokk ak moom tiis bi waaw maa ngi koy jaal képp kuy nitu làmb ak képp kuy doomu senegal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana fi mu jëm gënal ko fi mu jógee dem doon naflaayam Seydina Mohamed ramm ko ak baay Laay Seydi mii sëriñam man nag yàlla def na moom sama waay la ndax daaw combat bu mujj tëgg ma bëree maa ko organisé woon fi ñu toll nii moment bi may waxee yow ngi sama contrat war a bëre euh, roi des kon tey bu ko tiis bi dalee rek kenn waruñu fi jiitu waaw loolu moo fi waral daal ñu teew fii teewal ko ak wax axalu làmb yëpp. Euh, Big Pato. asbilahi min satan bismillahi rahmani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla gis suñu gis dañuy naqaar lu tiis bi dañuy fi indi tey ñun ñëpp ku nekk xam ne bàyyi ma joon fu mu egg si làmb mu nekk suñu frère suñu xarit tey dama xëy am fu ma dem sa jamaay kii mi moom ne bàyyi ma ñoon la waajuram bu génn bu góor génn àdduna ma ne ko loolu kon damay dagg sama équipe parce que bàyyi ma ñoon ñëpp xam nañ yaram ak tegginam ak mën a maslaam te bu ko naqar bi dalee tis ko kon ñun ñëpp la dal dañuy ñëw fii rek ñaanal paa bi ni ko jamee kay waxee yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana te saraxam yàgg sam loxo yàlla na yàlla teeru ko ak bàyyi laay yi moom yaakaar ku ñëw fi tey say ram day day dox ne paa bi paa bi moo tax àdduna li boo fi nekkee jëf ci baax rek moom solo lépp lu ñu jëf ci àdduna rek yàlla na doon jëf ju rafet parce que ëllëg dañuy dem te lañ fi bàyyi yàlla na doon lu gën lu rafet den masaw coono yéen parce que yéen yéene suñuy mbokk yéen tamit fu gestoo gis leen di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale képp kuy jullit doomu aadama ngi toog ak père Max Mbargane liñ koy di ko wax sigil ndigaale li ñu bokk ñaan yàlla góor gi yàlla yërëm ko xare ko aljana waaye tamit kenn mënta wax caaroy te tudd la loo ñu mën a wax si góor gi ak ki nga xam ne nii mooy doom tey di bàyyi ma njoon waaw xam nga góor gi Ablaye Diouf xam naa ko booba njoon mën naa ne judduwul euh, muy ku baax di suñu mag euh, rawatina discipline bi ñuy yëngu di làmb mu xam ci lu bëree bëri jaar na ci ndax euh, caaro yi ku fa ne ne foyee nga làmb euh, te te ñu ci yoroon euh, champion boobu di Pape nga xam ne fekki na ko tey doon entreneur am di manager am di ko coacher daan ko jàppale ci côté bu ne man nit ma ne woon ci tànk ñoom Pape maanaam doon seen rak biñ demee ba tekki seeni njoon juddu mu dénk ma ko njoon carrière am yu bëree bëri li ci ëpp maa ko yor te ñoom ñoo ko tegoon sama loxo euh, moo tax li nga wax rek ku dëkk ku tudd Caaroy tudd ñu waaye rawatina nag Ablaye Diouf mii génn àdduna di woy jur ci baay ba njoon njoon mën naa wax ci famille am lu bëree bari waaye rawatina góor gi ñu génn nga xam ne euh, discipline bi bi mu ci ne mi ngi ciy ne ba mu fa jógee nag dafa yëngu ci wàllu diine di sëriñ di taalibe bu mag ci kër gi dégg naa léegi bi biñ koy julee dégg nga témoignage bi ñu def ci moom wane ne euh, bàyyi laay ñàkkaat na beneen keneen ci liet naam yi ci ay soldaaram kon moo lay wan ne nitu yàlla la woon euh, kooku nag bu ñu ko ñàkkee réew mi yëpp a ko ñàkk Sénégal yëpp a ko ñàkk euh, dañ koy ñaanal rek euh, maam li maamu teeru ko yal na ko yàlla xare aljanna ñu ngi koy ziar ji taasu ci barkeem yàlla yàlla dolli leeram te taasuñu ci barkeem te it nag ñoom njoon ñu leen di ñaanal ñu dese barke bi ñoom it yàlla guddal seen fan ñu sut seeni i bàyyi aw fan loolu daal Babacar laa ci mën a wax euh, euh, grand Ablaye Diouf daal yal na ko yàlla xare aljanna jërëjëf Babacar. armeel nga ñëw sa mbokk am naqar muy baam ñoon way juróom génn nga teew fii. waaw parce que xam nga àdduna ni la ko boo si nekkee moom euh, maanaam bànneex am na naqar da am donc suba si la sawaay woo mun a papaam génn na àdduna te fan yëpp mu ngi nekkoon ci urgence. tey suba si mu woo ma bref mu woo ne 16 lañ koy entrevue donc loolu laa ñëw fii xam teewoo ko teewoo ko askan lu lu ñu yëngu mooy affaire bëre bi askan làmb ji yëpp ak écrit phase tout yëpp di ko ñaanal nag papa ji suñu papa yàlla ko yàlla xare aljana waaw loolu moom moo fi indi mooy sama teewaay waaw di leen gërëm di leen sant. ndax sigil ndigal mu mel ni tey seen wayjur wala sunu wayjur moo fi bàyyeekoo Cheikh Abdoulaye Diouf Fall ñu ne ñu ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana kuli fay. amiin sigil sa wàll sunu wayjur la sunu wayjur ndax wayjur ba am ñoon la man mii sax man mën naa ne man sama wayjur la ndax man jox na ma dégg ba taay fanaan naa gërëm man a doomam ba am ñoon si ñoon ñuy ànd gars yi doon tëggal sa naa ay seexlaan man da na ma daal métti koo xam ne mais dañ ko sante yàlla di ko ñaanal fi mu jógee fa mu jëm gënal ko fi mu jógee daal di ko ñaanal suñu borom xare ko si àjjana fi daw si moom ku baax la woon waaw ku bëgg njaboot dëgg fa yàlla xamewul ki doomu jàmbur xamewul ki sama doom la man déggoo jóge naa entraînement ba taay fanaan naa këram ba taay yeew ànd ak bàyyi ma ñoon junior dem entraînement ñëw mu jox ñu ndékki barki sëñ Bamba réer ak lépp moom ko resaloon waaw di ko ñaanal suñu borom xare na si àjjana fi daw si jërëjëf mu mel ni kii tamit yaakaar naa ki gën àddina way juram la sàmm ñu lay wax sigil ndigaale yaakaar naa góor gi sa way jur la woon waaw euh, di leen wax euh, sigi leen seen walla aussi que euh, lu ñu bokk ñun ñëpp dafa naa ne muy lu làmb muy caare sur mer ñàkk nañ kilifa ñàkk nañ mag ju baaxoon si xale yi mag ju baax daal koo xamante ni caare daal ñàkk nañ waaw ma koy jaale waa caare sur yëpp waaw di koy jaale waa Europe aussi vraiment kilifa la goo xamante ni bàyyil woon dara waaw di ñu conseillé ñun ñi di ñu jàppale heure bu ko gisee dañuy delloo chaque jour dañuy delloo si yàlla rek vraiment kon day ñàkk nañ daal caare ñàkk waaye ak lu làmb tamit ñàkk nañ di ko jaale ma Mandione di ko jaale rakkam yëpp ak magam yëpp di ko wax daal yàlla na yàlla yërëm ko xaare ko àjjana vraiment jërëjëf. rek sigil ndigal lañ lay wax parce que gis nañ teewaay bi fii relation bi laa bëggoon a xam lu ko waral ginnaaw jullit ak morom ji. waaw tey moom dañu am bésu naqar ñuy ñaan yàlla papa Baye Mandione yàlla xaare ko àjjana ndax sunu. sunu naataangoo la sunu nawle la lu ko laal laal ñu donc loolu moo ñu fi andi tey waaw. mel ni kon daal su ma la déggee yéen bu espoir bi jàllee yéen a bokk ndax yéen a bokk ku ci ne ci problème rek morom dinañ ñëw taxawu ko. waaw parce que ay doomu aadama lañ ñu bokk luñ bëgg ñu ñoo bokk luñ bëgg ñi bokk luñ bëgg nag mënuñu nekk ay noon ndax ku laal kenn ku laal lu laal kenn laal ñëpp tey bi ñu xëyee suba si information bi ñëpp la jot ci mbër képp kuy mbër information jot ci yow donc nag ñu ngi koy jaale ñu ñu bokk ñëpp di ko jaalee waa Sénégal. di ko ñaanal yàlla xale ko àjjana macha allah jërëjëf waaw. waaye jàmbaar dëgg la boo ko wéy rek barki Sëriñ Aliou mu dama yàlla yàlla sama borom amiin moo mel ni tey dañ lay wax sigil ndigaal li ñu bokk ndax góor gi fi jóge kilifa suñu bàyyi la ñun ñëpp bàyyi ma njoon waaw sant yàlla rek di gërëm ñu fi teew yëpp wax dëgg yàlla lii dal na xel yaakaar bàyyi laay àdduna àllaaxira génn àdduna ñoom ñu la ci wetam loolu rek dal na xel te ñun alal Seydina Limaamu lan moom lañ gëm tey gëm ka la yàlla ñu suñu borom rey dekkal ñu ci ñuy kontaan si fi ñëw yëpp wax dëgg yàlla yàlla yàlla taxawu ñëpp góor gi moom amuñu dara ñuy xel ñaar si moom addunaam yëpp ci yàlla ak bi la ko wér di tagg yàlla di tagg Seydina Mohamed kon ñu rafet nañ jot ci moom te xam naa ne fa la mu tëdd tey jii wax dëgg yàlla tey na kontaan trop Seydina Limaamu nee na ñaar ak gëm ki gëm ba dee kawe di ba dee mais yàlla na yàlla sama borom fay ñi fi ñëw yëpp waaw yàlla yàlla fay ñi fi ñëw ñëpp incha allah mbokku mbër yi sax gis nañ ñoom ñëpp ñu ngi fi tey sant bi yàlla yàlla fay ñëpp yàlla yàlla fay naka ñaanal rek yàlla suñu borom baax na maa ngi kontaan yàlla yàlla fay ñëpp yàlla baax na parce que instant bi xam yaa ma gën a xam dama laa rus rek mais ay wax sax taluma ko instant bi bari ki séeraale am ndax xam nga rek sama diggante moom waaw yàlla baax na quoi